xam ne lépp réew mi la. Mhm. waaw ndax bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla rafetlu nañu ko baax a baax a baax Sénégal ñu ngi développé. Mhm. te ku ko waxul dëgg xam ne xam ne ñu ngi développé. te loolu sant yàlla la. papa waaw. bala ñuy ñëw Myriam buggoon naa aussi ñu ñu fàttali sénégalais yi tuuti. Mhm. surtout nouvelle génération bii di seetaan. ñu fàttali leen kan mooy Pape Djiby Ba. ayca bu fekkee la vidéo elle est prête mën nañu ko seetaan te ñëwaat ci waxtaan Balya ah, Balya Balya Balya Nene kani wera Gopakyone Ele gopakyone Kende verai Kon papu warna Balya Balya Balya Balya Nene kani wera Gopakyone Ele gopakyone Kende verai Kon papu warna

ko dégg wóor topp mbokk muy dafa xam lu bokk ak ñoom na fekk lu ñàkk a waree ñaaw jëndee loo yeneen toppatoo mi mooy gëndee laay kon fatu war na doomi Sénégal xale yoonu leen ne dolli mbég wóolu nanu leen national day li yombu Sénégal xale yoon bi leer ni dolli mbég li cosaan la équipe nationale day li yombu Sénégal ñoo ngi ànd ak yéen foo leen tollu muy doole national day li yombu Sénégal xale yoon bi leer ni dolli mbég ayca Myriam li nag rappel la rappel la woon rek pour que euh, sénégalais yi mën a xam vraiment kan mooy kan mooy kan ki ñu dalal fii tey muy Pape Djibril Ba du ma ni sax Sénégal parce que sénégalais yi xam nañ ko mais euh, suñu génération ñun surtout euh, parce dañuy faral di dégg wayu ci mel ni Balia ñu koy reprendre alors que ni version originale baa ngi nii gaynde déglu lañ ko léegi defe naa Sénégal 92 la woon nga àndoon ceeg Souleymane Faye bu ci kanamee tuuti bëgg nañ ñëw ci intégration africaine ah, parce que yooyu tamit vraiment ci jamono marqué woon na temps yooyu bu baax. ayca dañuy ñëwaat un peu ci ci Balia. parce que Myriam amoon na fu mu doon ñëw ak yow euh, sànq mais avant loolu bëggoon naa ñu ñëw un peu ci ci Balia. Mm-hmm. ak ampleur bi mu am tey. ni ko nouvelle génération bi surtout di reprendre. Mm-hmm. boo koy boo koy seetaan tey nga nga sori lool di seetaan musique sénégalaise gis ni. Mm-hmm. œuvre yu ci bëri léegi ci ci yow la jógee. loolu lan la lay def. xanaa kontaan rek. kontaan rek am satisfaction bu rëy rëy rëy te xam ni li leen doon ñaan. musique bi yaatu. te wax dëgg yàlla xale yi jàmbaar lañu. ndax ku dégg fekk fekk fekkee démb musique démb ak musique tey di nga xam ne am na amélioration te loolu lañ doon ñaan nag bu dee baliya bi nga wax mooy c'est des valeurs sénégalaises ndax bu ñu nee baliya mooy dox mbokk lay wax te dox mbokk sañuy valeur la ndax boo koy li am solo boo koy may am nga solo boo ko amul ñàkk solo ku wéeruwul yomb ba mu wax te loolu suñuy valeur la dox mbokk dem lente fekk lente ndax lépp gi dem lente fekk lente waaw mm-hmm. ah àddina loolu ci am solo waaw ndax dina jubóo ci am solo te loolooy Sénégal bokk ndey bokk bàyyi loolooy Sénégal ndax li sama ram dafa daw sànq bi nga ma wanee euh, Souleymane Faye di sama xarit di sama doom réew ma di ko salué au passage euh, bi ñu koy def euh, en 92 la woon jamonoy bokkande Sénégal 92 waaw ak ñoom Roger Mendy wax dëgg yàlla moo tax bu ñu nee Sénégal ñoom ñëpp ay gaynde lañu waaw ñëpp ay gaynde ku ci nekk ci seen gaynde dans ton domaine loolu am solo la jërëjëf jërëjëf Mohamed si suñu ay gëstu nag ñu ngi xamal ne Pape que bi ngay commencé way c'était dans les années 70 euh, c'est ça bu ma juumulee donc boobu Pape ban ban at nga amoon exactement waaw tuuti woon naa nag tuuti woon naa tuuti woon naa da nga avant may commencé euh, uh-huh. suma carrière orchestrale uh-huh. def naa théâtre théâtre waaw en 68. d'accord ne woon naa ballet d'Afrique noire bu Mansour Gueye. Uh-huh. ñu répété ci kaw Sandaga. loolu yàgg na. sama première prestation ñu ngi ko def Daniel Brochet booru police centrale. Uh-huh. deuxième prestation bi ñu def ko Sorano. boobu j'avais 14 ans ànd ak ñu Mansour Gueye di ànd ak Abdoulaye Mboub dem si yàlla si. Uh-huh. bi daan bi daan ànd ak Ndiaga Mbaye. mu doon lu tuuti nag wax dëgg yàlla. Euh, wax dëgg yàlla mu doon loo xamante ne daal lu lu ma sori la lool. waaw lu ma sori la lool te xam ne li leen doon ñaan. musique bi yaatu. Mhm. xale yi di dem di ñëw. Mhm. nga xam dafa yaatu it. bu dem bitim réew xam na am na évolution bu baax a baax. a baax ban son ban son nga njëkk a woy papa ci ci ci ci at yooyu loolu ci say at yu néew yooyu. ban son nga njëkk waaw sama début li ma mooy mhm. Bouna Ndiaye. Bouna Ndiaye waaw Bouna Ndiaye Aliou Seye waaw non non Bouna Ndiaye. Bouna Ndiaye maa jigéen. Bouna Ndiaye ba Jolof mare naan. Bouna yaa ba niteen waa Jolof di j'avais 14 ans may ànd ak Abdoulaye Mboub ndeysaan mu di ñu tetti man ak Thione mi tey mhm. doon lu tuuti kere ba mu ñu jëlee yóbbu ñu yóbbu jël Thione yóbbu ko Star Band Papa Alioune Kassé mhm. Ibra Miami mhm. ndeysaan jógee jëlee euh, Thione yóbbu ko Baobab man ci la ma indi Miami waaw ma nekk doon lu tuuti ba ma fa jógee nag ci laa ci leen créé le number one de Dakar ci la Youssou Ndour na ah, ñu remplacé Miami moo jiitu Star Star Band moo ah, moo jiitu Star Band moo moo jiitu. Mhm. waaw Gassi moo jur si leen defoon sax le film xala Ousmane Sembène waaw Ousmane Sembène moom it yàlla na yi xam sedd ne lu baax yàgg na fi ci réew mi lu baax yàgg na ci réew mi culture la Sénégal culture waaw chacun ah dëkku jàmbaar la waaw Sénégal jàmbaar waaw waaw morceau le président le président waaw morceau président merci merci yaay benn bu gën ñaar am nga jalo